salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xarala académie mbokk yi saraan xarala académie dañuy topp ci suñu formation Windows 10 en wolof tey dañoo ñëw ci lu am solo mooy naka ngay télécharger benn application boo xamante ni nekkul Windows Store maanaam store bi nga xamante ni moo nekk ci sa ordinateur naka ngay télécharger benn application bu nekkul foofu voilà te tey dama leen tànnal euh, yaakaar naa neuf wala huit huit sites yoo xamante ni mën ngeen ko fa télécharger te lu tax ma tànn sites yooyu mooy yooyu ñëpp sécurité maanaam mën naa wax ni cent pour cent wala quatre-vingt douze pour cent yëpp c'est garanti quoi ok léegi bis njëkk mi ngi tudd ninite point com mi ngi nii léegi boo duggee da ngay xool application bi nga bëgg te fi li tax mu gën a am solo mu la neex nga téléchargé no dis application comme tey nga xool application yi nga bëgg fii comme Winrar TeamViewer bu la neexee Google Chrome léegi da ngay yi nga bëgg a téléchargé boo paree nga cliquer fii get your ninite boo paree rek léegi mu ñëw indi la téléchargement bi xaaral léegi mu ñëw dama commencé télécharger gis nga man maa ngi télécharger internet download manager ok léegi léegi téléchargement bi ñëw nga koy télécharger loolooy bu euh, application bu njëkk bi léegi application bi stop mi ngi tudd softpedia point com gis nga téléchargement application bi njëkk baa ngi nii google chrome install point exe nga bës démarrer léegi application euh, site bi stop mi ngi tudd softpedia point com moom boo ñëwee euh, euh, mi ngi nii am na logiciel windows am na divers bu dee tamit game mooy jeu yi am na mac tamit ak android mais ñun windows mooy intéressé ñu bës windows ok léegi boo ñëwee si Windows da lay indi application Windows yi nga xamante ni ñoo mujjee génn léegi yow nga xool yi nga xamante ni moom nga ci soxla comme boo duggee fii nii comme genre yii nii bu la neex mën nga télécharger da lay wax tax mu ne ñi ko télécharger cinquante huit download bi deux mille cinq cent trente sept voilà loolu lay war ni tamit euh, sit bi am na garantie léegi comme ni ngay télécharger fee rek dugg ci application bi ngay def boo duggee bés download mu dem. ok bis topp mi ngi tudd mm, mm, eh, Major Gix Major Gix gis nga application yaa ngi nii anti malware antivirus backup CD léegi fii tam booy télécharge da eh, application bi nga bëgg a télécharger gis nga 25 février 2018 comme tey dimanche léegi nga bës fii daal di télécharger mu dem beneen site bis topp mi ngi tudd filehippo point com filehippo point com tamit moo ko kii ñooyam boo duggee rek application yi ngi nii boo bëggee télécharger benn mën nga bës fii comme Ricova bi application la pour recovery comme VLC Media mi ngi nii Media bi ton dafa yeex quoi léegi boo bësee euh, comme application bi nga bëgg euh, télécharger moo indi la si beneen page bi léegi nga si sur télécharger mu ñëw voilà léegi fi ngay bës rek télécharger mu ñëw bu dee site bi stop mi ngi tudd file paiement léegi moom application yi fi nekk ñoo nekk nii am na ubit 360 total security boo cliquer ci application bi mu yóbbul beneen page bi gis nga mi ngi nii no virus no spyware no bundle no adware maa amul benn virus nga bës fii download benn bi stop mi ngi tudd download crew dot com léegi fii tamit application Windows Mac OS Linux iPhone iPad Android store voilà léegi Windows moo ñu intéressé ñu wàcc ba xool application Windows bi ñu bëgg Malwarebytes waaw léegi ñu dugg ci application bi da lay yóbbu beneen page nga téléchargé ko comme ni ngay téléchargé bële léegi ñëw na Malwarebytes mi ngi nii nga daal nga cliqué fii daal téléchargé beneen site bi stop mi tudd filehorse point com fii am na Wireshark am na whatsapp tax boo xamante ni pour windows bi la ay winmap gis nga nga gisaat si malwarebytes ak itman léegi da ngay cliquer rek boo cliquer moo indi la page téléchargement nga cliquer free download mu ñëw beneen bi stop mooy snap files snap file bi tamit pour télécharger la bii mu nekk application am solo folder colorage mooy da ngay euh, colorer sa dossier yi mooy folder colorage bi léegi nga dugg si application bi moo ndiree si beneen page bi mooy page de téléchargement bi nga daal koy téléchargé mu ñëw léegi euh, beneen application bi des mooy ban site sax ok voilà ñëw na si beneen page bi bu ñëwee fi ngay cliquer rek download mu ñëw léegi beneen bu mujj bi tey mooy nekk euh, donation crowder point com léegi euh, site yëpp naa leen defal lien bi ci description maanaam ci suuf vidéo bi fi commentaire nekk bu ngeen bu ngeen bësee rek di ngeen gis euh, site yi nga xamante ne présente nañ ko fi tey bi mooy mujj bi am na yi nga xamante ne ñoo mujjee génn comme bii nii nga bës benn application bu neex tamit mën nga recherche léegi bu wàccee ba suuf moo indil application bi mi ngi nii bu dee bi nga bëgg a télécharge tamit da ngay cliquer ci application bi rek voilà site baa ngi nii waaw léegi ñu bës fii léegi moon indil la koy télécharger comme ni ngay télécharger yeneen application yëpp voilà mbokk yi doon seetaan Xarala Academy doon topp seen formation Windows 10 en wolof tey fii la ñuy yem beneen yoon ci beneen tutoriel merci